waxee expérience bi nga xam ne amoon naa ko ci eh, au niveau de l'UEMOA xam ne neuf ans def naa ko jël naa ko boole kook expérience su yàgg a dox yàgg a gis lu bëri ak bëri ma xam ko ci contrainte yi ndax na nga xam ne ci espace CEDEAO UEMOA bi yàgg naa fi jëndanteeg jaay di dugg Mali di dugg Guinée di dugg Guinée Bissau gi di jaayanteeg Cap-Verdien yi kon xam naa ko ndax suma liggéey la kon loolu daf ma am lu ma jariñ expérience boobu moo tax bi ma ñëwee wax dëgg yàlla yëf yi yomb ci man ak li ma doon doxit ci au niveau du parlement depuis xam nga ne 2007 maa nga fa bi may jot parlement bi jaa def naa juróom-benni at expérience foofa pakk ya fa nekkoon yëpp yu bëree bëri xamoon naa ko moo tax ma gaaw yu bëree bëri dama ko simpi sànni attaquer problème bi fexe ba mën a am base juridique bu ma mën a sukkandiku pour li ma bëgg a doxal ma doxal ko loolu moo ma may réussite yi ndax il fallait que man ma man di dem ci terrain bi ci loi may ma ko man di interpeller force de sécurité et de défense yi man leen di joxi ndigal hmm. man di dem ci état yi mën a wax ak ñoom man di def ay réunion yoo xam ne day tax nit ñi visibilité parlement bi mën a génn aussi biir espace bi fexe ba jokkoo bi bi a dem comme ni ma ko defee ak euh, zone Afrique bépp euh, di fexe ba lu xew hmm. ñu yónnee ca taxaw ca fexe ba it am confiance conseil des ministre ak conférence des chefs d'état bañ man maa jox ay moyen yoo xam ne loolu danaa ko mën a def hmm. ndax loola pour ma man noonu leen convaincre dama doon yaxanal moyens yi fexe ba liñ may jox duma ko fab rek ni jox nañ ma ko dama koy dépenser mais damay fexe ba toujours muy des hmm. bu desee bu laajaatee dañ koy yokk ndax dañuy ma doxal ñoom ñëpp gis nañ ko. waaw bokk na ci li ngeen doon euh, xeex euh, doon ci euh, def plaidoyer bu rëy mooy nouvelle monnaie boo xamee ni Afrique dañu koy bokk di monnaie commune éco muy une bonne chose également. way mais loolu man maa ngi jógee Abuja xam nga conseil des ministres fa la ñuy leeral lépp. Hmm. bokkoon naa ci conseil des ministres CEDEAO bi ba am ba participer ci conférence des chefs d' état mais conseil des ministre bi leeral nañu fi ñu toll ci étape boobu euh, muy loo xam ne c'est irréversible hmm. pour ñu dem vers une monnaie commune boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo koy bokk au niveau de l' espace CEDEAO mais xëy na ñëpp du ñu duggandoo. Hmm. mais jàpp nañ ne fi mu toll ñi jekkagun dëgg dëgg dëgg mooy espace bu UEMOA ndax ñoo déjà ñoo bokkoon franc CFA. Hmm. liggéey yi ñu war a liggéey ci convergence yi yëpp liggéey nañ ko am na tuuti lu ci des mais dañoo ni quelque soit alpha comme defoon nañu date bi deux mille vingt. Hmm. nañu fexe ba commencé dugg. Hmm. ñi jekk démarré. Hmm. ñi ci des dab si leen. Hmm. ma jàpp ne loolu yaakaar nañ ni avant deux mille vingt eh, loolu dana sotti mais loolu tekkiwul ne. monnaie bi dañ koy teg mu circuler ci espace bi déedéet. Hmm. c'est-à-dire li nga xam ne war nañ koo régler. ci loi étape lay doon voilà ak yooyu yëpp danañ ko def ba nga xam ne wax dëgg yàlla xam nañ ne loolu kenn dootu ci dellu gannaaw loolu la. waaw euh, euh, Mamy Samb daf may wax naan ma Moustapha Cissé Lo boo ko dalalee da nga naan da koy woowee wel bu way bu bees naan Moustapha ngi ñëw dal seen kaw dafa mel ni <laughs> yaa ngi jóge fële léegi nag yaa ngi ñëw dal ci kaw gars yi. <laughs> waaw mais euh, na noonu la koy hmm. man boo boo ko seetee sama doxu politique processus bu clair la parce que ñëwuma pour politique di tàccu nit ñi man politique bi ma ciy dugg dama liggéey ba yor sama stóot ñëw ni nag man jàpp naa ne politique te yoroo dara erreur la ndax man mënumaa def politique de la main tendue jox ma may ma sarax ma déedéet xawma ko bi may tàmbali politique ba léegi ñi ma xam xam nañ ne damaa yor sama stóot def ko ci loolu mooy li wóor opposition la tàmbalee dugg ci parti pouvoir continuer ci ba bis nag tey te bëgguma cee génn de toute façon APR la bokk tey APR defal naa leen li ma leen war a defal lépp président bi mu bëggee majorité li ma neex li ma naqari bokk naa ci coalition bi pour nekk député bu ma ber woone danaa am benn député hmm. loolu wóor na ma hmm. mais loolu taxumaa jóg jàppale naa ko am ci moom yaakaar falu na ma continuer ànd ak moom bi mu demee it bay bu beneen manda dama créer horizon deux mille vingt jël sama moyen propre financé ko wut ay oto yoo xam ne occasion la ñu mais mën naa cee dox te du ma luye wër réew mi fab samay nit yi ànd ak man te gëm ma ñu ci ëpp ci peut-être euh, lañu mais bokkuñu APR ñoo xam ne ñi bu ma leen bàyyi woon mën nañu bokk feneen ma fexe ba dajale leen pour ñu jàppale président Macky Sall. maanaam yow defal nga APR mais est-ce que tey APR fay na naar bi xoromam. waaw waaw mënuma wax nii fayu ko ndax ci tax ma doon liggéey xam na suma gëdd wax dëgg yàlla. peut-être mënuñoo juboo ci lépp waaye am na lu ma defal am na lum ci fay am na lu ma doon xaar jotuma ko it muñ naa ko mais lenn rek mooy li ma la wax li nga xam ne moom laa ciy regretté mooy depuis mu am deuxième mandat defu ko ci man rek da koo def ci ñu baree bari daa tëj ay buntam. kenn xamul moo ko tëj wala dañ ko ko tëjal. mais en tout cas bu ko tëjul am na ñu ko tëj ci benn néeg. Hmm. te xamul li nekk ci biti. loolu mooy dégg gi loolu mooy problème bi moom la am ak ñëpp ñi mu amal problème tey te doon ko jàppale. Hmm. mooy daal tëj buntam mënuñu koo jot mënuñu koo dégg xamuñu ci moom mu mel ne amatul soxla ci kenn. Hmm. kon noonu lañ koy gisee mënuñu koo gisee neneen. mais euh, damay gis ci benn émission boo def ni kiy dem ci dimanche bi euh, nga ciy tudd sax ne ni am na ñoo xamee ni dañuy wër Macky Sall mais ñoo ko gën a yàqal nga ciy tudd sax donte tuddoo turam waaye dañ koy tudd ku mel ni Mahmoud Saleh. waaw mais ñëpp ko wax xam nga ñëpp wax Moustapha Diakhaté wax na ni am na ku ko wax man wax naa ni Aliou Diouf Lambaye woo na ma ni ma Mahmoud Saleh da koo woo di ko wax ni ko pourquoi ngay défendre Moustapha Cissé Lo ci fan la ko teg. ngeen bokk seen waaw moom ma jàpp ne bu dee moom day conseiller président te moom am nay jamono yoo xam ne quatre heures du matin bi ñu nekkee opposition daa bëggoon a daw bi mu méttee Ablaye Wade recevoir ko bi ma ko yëgee Diourbel la fekk ma Macky Sall man maa ni Macky Sall bàyyi ma maa ko woon ni ko boo génnee fu ma la fekk banu bopp laa lay dóor <laughs> looloo ko delloo si man nettali la lool mm. barke le daa dawoon delloo tey tey bu lay def nii. waaye waxuma loolu dafa def leneen. Hmm. dafa dem toog fii Macky Sall nangu ko recevoir lu jege ay 3 mois 4 mois ma ñëw muy saaga ndey ci bureau maa dem ci Macky Sall ni kom naar bi dana dem boo saaga ne. Hmm. looloo ko may poste ministre d'état bi ndax ministre simple la woon conseiller. Hmm. muy def rébellion bu terrible nekk di jëw nit ñi a fen ak tappale loolu la war a arrêté. tegu ko fen ndax moom amul base politique. amul ñaari nit amul mbokk ci Sénégal bu doon ñibbi Mauritanie lay ñibbi ndax. dëkkul ci réew mi. waaw waaw euh, Mamy Samb Moustapha Cissé Lo dafa mel ni bari nga tey ay noon ci biir APR te pourtant yaa leen fa jiitu. man ko dunduma ñooñu xam nga man kenn rek moo a intéressé mooy président Macky Sall soxnaam ndax ay relation la ñu am yoo xam ne xam nañ ko ma xam ko mais ñi ci des buñ ma defee noon noonu ma lool ndax Mbaye Ndiaye ma noon président dañ koy nax hmm. ñi koy nax nag da leen a war a xool mu dàq leen développement rural bii bu ma ko yoroon barke rasulullahi gerte gi dana jëm ca kaw man bu ma ko yoroon xam naa ni boo gisee président li nga koy njëkk wax moom ci gerte gi la jëm moom mais gerte gi niñ ko joxee baaxul engrais bi baaxul ñaar yooyu niñ ko joxee baaxul ndax engrais benn engrais la gaa yi jëndul ñañ koy jox xaalis lañ leen di jox ñoo def ko seen seen poche la ñuy engrais. ne état bi daal di fi effort di ko jënd di ko subventionné di ko jox gars yi seen poche lañ koy ji. waaw dina engrais seen i poche waaw. kon euh, ñu koy jaajëfal euh, président Moustapha Cissé vice-président assemblée nationale euh, xibaar bi nga xam ne nag ñu ngi ko doon waxtaanee ni ki sànq nag muy loo xam ne dafa am firnde mu yàpp accident bu am fii ci kaw pont de l'émergence dañu fay fekk suñu ndaw li nga xam ni moo ñu fa nekkal jamono ji ñaar lañ sax muy sax ak Nanko ko Nanko Bakayoko maa ngi lay nuyu. maa ngi lay baax waaw accident bu euh, bu bu metti nag ndax euh, nee sax ni am na ay nit euh, ñu ci seen bakkan des. waaw lu mu néew néew mën nañoo jàpp ne ñeenti doomu aadama en tout cas euh, ñàkk comme nañ seen bakkan ñu ngi wax ne sax euh, ëpp na ko dem na ba juróom-benn wala juróom-ñaar mais ñun bi ñuy egsi daanaka euh, ñaari corps sans vie ñu ngi nii tëdd ñoo xamante ne bi évacué kuñ leen te am na ñoo xam ne jot nañu leen yóbbu lu ñu mën a wax nag mooy accident bi ñaari camion muy camion frigorifique yoo xam ne doon yóbbu ay jën ak benn jagajaay ak beneen euh, bi nga xam ne oto particulier la euh, ñoom ñoo impliqué wu kon ci bile accident nga xam ne euh, métti na ko fu metti yam accident bi nag fi exactement moom mooy fi nga xam ne mooy passerelle bi nga xam ne moom moo toll juste ci stade Aditié wala stade Léopold Sédar Senghor kon boo nekkee da nga jógee fi nga xamante ne bi moom mooy euh, Cissette mel ni kuy dem Padois kon ci euh, passerelle bi juste foofu la am euh, kon fi nekk nii comme ni ma ko waxee ñi nga xam ne ñooy ñu ngi fii waa gendarmerie nationale également ñu ngi fii mais am na deux corps sans vie kenn ki sax agent wu SAGAB la. Sagam sécurité ay collègues am ñu ngi fii mais jafe na pour ñoom it ñu ñu ñu àddu ci waaw li ñu li ñu mën a wax moom mooy Birane mbir yi foo ko nattu ci euh, violence euh, romb na ko parce que euh, accident bu impliqué ñeenti oto ñaari camion yoo xam ne dañoo yëpp ay jën jën yi sax dañoo tasaaroo fi nekk nii ci fi nga xam ne moom mooy ci ci bi kon fi nekk nii vraiment affaire yi métti na métti. Hmm, oh, mais mais mais mais mais nanko nanko oto yooyu dañoo dañoo jàkkaarloo wala dañoo mbëkkante ci ginnaaw wala nu mu nu mu demee noonu ndax. Euh, bu ñu xoolee yow fi nga waxee euh, muy ci passerelle bi euh, ci en face stade Léopold Sédar Senghor benn voie la buy dem jëm Patte am beneen voie boo xam ne ni am na séparation sax buy ñëw ci di dem ay Yoff ak yu ni mel. Hmm, comme ni ko waxee am na am na séparation oto yi nag ñëpp ci benn sens lañ doon dem. Hmm. mu mel nii euh, ni mu ni ma ci mbir yi ni nga xam ne mooy benn camion surugosé bi dafa xaw a sax saaraan ba mbëkk barrière bi li nga xam ne moom moo euh, séparé diggante ñaari tali yi mu leer na leen déparation bu amul woon mën naa sax dem fëx dem ci beneen voie bi hmm. euh, li mu mën a wax daal moom mooy ne camion bi peut-être moom moo dérapé mbëkk yeneen oto yi nga xamante ne bi mu mu def karambolage boo xamante ne bi Euh, bu bu bu doy la. Hmm. nekk nii maa ngi nii jàkkaarloo ak corps sans vie wu agent wu Snagam bi ñu euh, muur beneen corps mu ngi ne moom nag defe naa moom mooy euh, chauffeur particulier bi. parce que hmm. juste ci buntam. fa la tëdd ñu muur ak sër bu bleu waaye également. am na keneen koo xamante ne bii euh, ñi nga xam ne ñooy sapeur pompier yi ñoom ñu ngi koy euh, jéem a ñu ngi koy jéem a euh, def li nga xam ne mooy secours yi moom nag ku ku la moom ci ci njaga jaay bi la la bokk Birahim fi fi nekk nii daal biir yi. doy na waar doy na waar waaw doy na waar doy na bi naka la naka la demee. parce que ñoom ñëpp benn voie peut-être que waa ji est-ce que. a perte pédale. est-ce mm. que dafa perte contrôle loolu yëpp. ay question loo xamante ne peut-être que. dinañ d'accord d'accord ñu lay jaajëfal xam naa ni bu huit léegi nii incha allah ñu àndat ak yow ak euh, El Hadj Mansour Diop euh, bu ci diggante bi euh, loo ci mën a am rek ci yeneen yi xibaar kon ñu leen ko doon wax muy un accident qui est même très mortel puisque il y a eu au moins quatre victimes avec notre reporter. faire sur place Nanko Bakayoko accompagné de Younous Abalde euh, qui nous a parlé justement à l'instant même de ce choc euh, impliquant plusieurs véhicules